toujours bataille Pastef taxaw Sénégal ah bon Colobane théâtre des opérations yow Colobane nga dëkkuru hmm. ah xeex daa amoon diggante Pastef ak taxaw Sénégal maa nga fa woon de mën naa ko dagalee ci jal bi waa def ko ci jal bi def ko ci jal bi ay insinuations Sonko Abass Fall contre le maire Taxawu de Colobane et des accusations des marchands ambulants leader de Pastef tâte le pouls de la fidélité prône plus d'humanisme dans le déguerpissement pour le moment et annonce des financements de la DER annulation du DOP acte 1 de la crise yéen kaay bi wax na ci jëlal photo bi kii mooy Abdou Mbow <laughs> tey sax moo nekkoon invité kii a mu ne mission d'audit de la Banque africaine de développement et de la Cour des <laughs> réew mi dafa neex le projet agropole fuye yéene kaay bi di ci wax assemblée nationale mu ngi nii mu ne réponse au gatsa gatsa yéen a ngi ci Koromack toj na fi yéene kaay bi ne li tax mu wax loolu gouvernement dafa jël circulaire daal pour chasser les occupants du marché Colobane Ousmane Sonko le chef nee na yëgul tinu lii moo tax mu ne Koromack toj na fi ay ñëwal ñu ñëw ci yor-yor accaparement foncier sur la corniche mu ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye li mu ci décidé Pape Ousmane mooy ñu jël plage Anse Bernard ba nga xam ne falaa daan dem fa la Pape Moussa daan dem les de devant vous fa lañ daan dem xale yi fa lañ daan féexloo di fa sangu ji di fa lakk soox xool di fa jàpp good time. nice fine. nice fine. jëndal président Diomaye nee na delloo leen ñu ko. waaye yéen dama yaakaar ni yéen xanaa yéen ndakaaru moom bañ koy dagg parcelles yi moom waa lii xanaa lii moom weesu na sunuy maam lébu moom dama yaakaar ne dafa amoon beneen restitution de partie boo xam ne dafa am ngeen di jël suuf di dagat dagatee xool booru géej bi xool nu ngeen fay defee pied dans l'eau yéen daal yéen a war a dund àjjana nekk fi gën a nooy ñeneen ñi daal ñun ngeen teg ñu ci xal yi rek ñu ñu war a dund safara maanaam ci seen sañ-sañu bopp ngeen jël suuf yoo xamante ne ak ay maanaam foo xam ne fa la nit ñi war a féexloo war a faa jëlee air ngeen def ko ay espace yoo xamante ne boo jaayul wala boo jëndul doo bëgg ñeneen ñi dëkk fa parce que seen nafsu ba kenn lañ topp ñun ñii nga xamante ne nag wax dëgg yàlla ñu suukar troisième ngeen baxal xal ba mu tàng ngeen teg na ci ñu toog dugal nu safara te nun deewul jugement dernier duggagul ay yéen capable ngeen nag billahi bu ngeen fa dëkkoon di ngeen gént xeeti gént yoo xamante ni ni bu ngeen daw nag pëcc di génn seen kër du ngeen ko tey yéen ña ngeen àq nag delloo leen nu sunu as dama fa war a sangu ci sax d'ailleurs en passant mais qu'est-ce que c'est que ça. léegi commencé sangu jiwaat. merci président Bassirou Diomaye <laughs> le soleil mu ne lan opération déguerpissement gestion littorale les amers constats du président dina amer kay dina weex kay. Ousmane Sonko wàcc na démb Colobane jóge fa dem As Berna Ngoone Saliou wax na ko yéen a kaay dangaa tardé. ñu àndoon. ah mu ne invité maire bi mu fait preuve de tolérance en attendant de trouver les meilleures solutions loolu gën kay. Euh, deuxième endroit décelé na fa ay prédation foncière mais tu te rends ay ci ginnaaw yéen kaay bi Le Soleil observateur mu ne lan enquête choc sur les détectives privés au Sénégal ah yéen Sénégal daa am i détectives privés révélation sur les missions et les plus de 800 clients satisfaits diggante ak 2024 ko woon dimbali leen ma damaa bëgg recruter détective privé mu defal ma enquête ci Pape Ousmane li muy liggéey ca Mboro dimbali leen ma jox leen ma seen numéro téléphone waaye mu ne le gouvernement et les déguerpissements double jeu daal la ñuy joué gouvernement assemblée nationale baax na nañ ko jàppee nii rek nga ñëwal nii la yéenekaay yii l'exclusif mu ne descente de la rattrapage au lendemain des déguerpissements xoolal nee nañ Ousmane mooy pyromane dafa nekk pompier PP su ma la nee PP nag bul yaakaar ne photo de profil laa lay wax bu WhatsApp dégg nga pyromane pompier Pape oh, Moussa yaa ngi dégg bu baax yéenekaay bi nee na pyromane pompier moo am taal ba pare dellu di fay mais mais lii daal marchand ambulant yi fu ne nii état ne seen ay man yéenekaay yii ci dëkk bi ñëw leen billaahi yéen journaliste yii ñëw ci stade du port ba xool France Portugal mu ne sous pression nii la ko yéen bu waxee Mbappé ngi kii nag mooy Kiris ah kay fu mu nekk nii ñoom ci ci kii bu neex lañ ne waaye Sabali un avenir en pointillé puis ci ligue de football amateur Abdoulaye Sow moom moo quitté présidence yóbbu ma làmb ja yóbbu ma làmb ja ay ca ñu dem làmb ja yóbbu làmb ja <laughs> sunu làmb defee par Eumeu Sène Sa Thiès ça mordra les point d'exclamation est-ce que lii laa bëggoon lii waaye lii yéen kaay yi tey la lii sunu làmb tey la premier juillet pourtant tey la de. tey la kay le choc des espoirs aura duré deux minutes euh, euh, Balla Junior ak caatu kii combat yi amoon démb lan moo tax yéen bii moom mu xëy defee ko nii tey ak moom lu mu xewle démb fàttali leen ma kan doon bëre. nekk ma foofu dama tukki woon ah. Gris Bordeaux ak Piquet. Euh, Piquet Ama Baldé waaw Ama dégg naa da koo dóor ba kii match euh, kii décision arbitrale la gagné daa dóor Gris Bordeaux bu mu sedd na sax. ah du boobu sedd na de. ah dóoru kii bi. Euh, kooku def relation. Zos waaw tamit nag muy def relation internationale. kan mu def relation internationale. Zos waaw. dóoram bi metti na. dóor bi nag dafa mooy kawo bi. Mm. kawo bi moom lañ daan kaw mais loolu tam war nañ ci jóg de. Ah, non non xoolal sax war na war na ci jóg parce que buñ la dóoree noonu nga perte connaissance bu amoon ay médecins ak sapeurs yu ñëw kii ko. Ah, am naa ko relation internationale yi moo wàññeeku rek nekk relation nationale. inter bi yaa ngi jógul wax dëgg yàlla yenn dóor yu ah, métti yi dañuy indi inter bi. bàyyi leen bàmb ji. ak màggi màggi tamit mooy mbëru Babacar bi. non màggi màggi da doon bëriwaat démb. da doon bëriwaat démb màggi màggi xanaa ko daan na. daan dañ ko daan ah dañ ko daan mais màcc màcc bi bi bayee mais. Ah, wax naa ko na bàyyi mu ne nañ changé waat tur bi. màcc màcc ngoone Saliou daanaat nañ ko démb. dañ ko daanaat. il a mort de poussière. waaw mais ñun sénégalais dañoo fàtte défaite yi mu amoon bi muy nekk Papa Boy Djiné léegi yu màjji màjji yi rek la ñuy te ci deux défaites rek la parce que même yu Papa Boy Djiné yi dindi nañ ko yu màjji màjji eh, yi la ñuy comptabiliser eh, bi dafa doxul woon mu changé tour laal màjji màjji xool na mooy gën a dox rek màjji màjji gën a pire léegi situation bi léegi dañuy jël euh, résultat Papa Boy Djiné pilis les résultats de Madji Madji eh, ñu def total. non en attendant en attendant le changement de nom. non du changé noo. Madji ah, Madji du changé noo mooy problème am xam nga àdduna lépp rafetal la. waaw yow da nga yàgg rafetal te nous sommes amnésiques daal ci yenn yi nga xam ne passé na ci papa Boy Djiné. amnésique ma de. Ah, ci yenn défaite yi. fàtte ma tool nii li ñuy comptabiliser mooy papa Boy Djiné ñaar laa. ñaar la damaa jaaxle sax. te. Eh. ñaar défaite. xool ma fi ma la xool nee ma jàkk. Madji Madji mii kat kuy mbokkam da ko mu bàyyi bëri ah. majji majji mii xam nga léeg-léeg nga bëgg dara fekk fekk sa destin nekku ci làmb loolu day am. loolu lay mais démb gis nga gis nga kii Giri. Giri boor Giri nag. Hmm? Hmm. waaye ambiance la waaye moom tamit xale bi dóor na ko ba jox ko décision arbitrale loolu. Ah, na fecc de daanu waaye fecc. ah mën waaye nag fecc taxul ñu wax kay ndax fecc boo mënee fecc kay day day dangay dangay ànd ak mën a bari Ama Baldé mi laa la ne. yee xale bi kay moom kay Pikine la dëkk kay. waaw waaw ñu ngi koy félicité. di nuyuwaale Pokola. Pokola la. mooy sama mbës man Pokola bi mag yi Madji Madji daanati nañ ko nii. Mm, waaw daan na. man de Pape Moussa kaay ma mm. wax la maanaam su ma nekkoon juriste ni yow comme ngay def yeneen juriste yi rek di leen foo leen expliqué leen ba nii bëgg dee mooy ma kaay wax la te yi bu fekkoon ne dóor yi dóor psychologique la rek da ciy yem waaye ngay dóor ci port dóor ci sañ si dóor leen ba nii bëgg dee. man damay xam ne Ngor Saliou damaa jàng dëgg la droit juriste hmm, mais man damay daal di soppaliku def leneen def droit droit droit des affaires wala droit des kii droit des relations droit des noppalu droit des bëggante droit des relations amoureuses yu yu nooy yooyu lay def ma bàyyi Pape Moussa muy gérer yeneen droit yu foor yi parce ah, que xam yooyu am na yi nga wax de relation amoureuse. ah fiançailles c'est réglementé par le de la famille. droit de fiançailles lañ ci waxtaan de nga tegal ma nan laa war a ah, def. Ah, fiançailles droit nga wax ma comment ça va se dama nekk ci projet mais mais mais maanaam boo nekkee ci projet fiançailles <laughs> après nga bëgg ah, ko réglementé bu code de la famille eh, ah, wax neex na nag déglu leen tuuti may ma tuuti Pape Moussa nga ne daa mel ni eh? mm-hmm. bi fiançailles ma ne la boo nekkee ci fiançailles ba bëgg dimbali tiir loolu am na loi ah bien sûr ah, mariage sax am na rupture waxuma la ak fiançaay. mais fiançaay bi boobu. mais réglementé nañ ko de. mën nañ ko couper à tout moment. Ah, ah, du n'importe comment de. ah xaaral doo na bàyyi na. comme comme mariage rek ma am na est-ce que comme par exemple jullit mën a ci nekk. merci ah. a <laughs> dugg da ngay dugg man damay génn nga ne dafa bëgg génne. ah waaw non mariage sax du da nga ñëw génn. mais maanaam comme ma jékki-jékki rek def. déedéet loolu dafa yomb. Ah. damaa la dellul dellul. <laughs> kon fian fiançailles mënoo ci génne noonu. ah non jékki-jékki waaw xam nga xam nga xam li tax ñu réglementé ko def ko promesse par exemple. Mhm. oui. léegi yow boo defee promesse keneen jékki-jékki ñëw tàkk la euh, waroon ngaa doon pour fële lële avec des conditions dañu annulé moo tax am na ku ma di ba mu ne euh, jëkkëram dafa signé woon monogamie après euh, lële euh, après takk ko moom takk suuf léegi aaw bi bëgg a bëgg a dem ma ne ko déet aaw bi kay moom bu dul bu warul woon dem moom yow la war a dissoudre sa mariage <laughs> parce que moom bu taxawee rek ne juge bi kii sama certificat de mariage a ngi nii monogamie lépp lu mu defaat day dissoudre d'accord d'accord jërëjëf euh, Pape Moussa am na solo lool ajaratu Mami merci pour la revue euh, ñu ngi lay jëfal bu baax a baax a baax alors dañuy daal di enchaîner ak cas euh, sur cas ngoone daal di ñëw daal di ci ànd ak ñun li ñuy waxtaanee mooy mort d'un détenu à la Mac de Tamba